képp ku am commentaire boo bëgg def ci bépp série sénégalaise que ça soit mu nekk Mœurs Madior ak Dior Idole bépp série bu mu mën a doon wala nga gis loo xamante ni dafa am ci réew mi ñu war cee wax mën nga ko envoyé par vocal ci numéro bii di affiché numéro bi nag amul group képp ku am loo bëgg a wax da nga koy yónnee par vocal ñun incha allah buñ ci jotee dinañ ko jàllale parce que lu xew TV ñun ñëpp ñoo ko bokk. te bu leen fàttee abonné wu di partage vidéo yi ngir liggéey bi gën a mën a yaatu. lu xew TV seen YouTube sénégalaise da bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor. waaw salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen di ziar baax a baax di leen nuyu ah, te di rafetlu waxtaan thème yi thème yi fi jàll yëpp ah, maa ngi koy rafetlu baax a baax di leen remercier te waat di encourage encouragé baax a baax te xam ne lii moom lu am solo la waaw ndaxte ñun may nañu ñun ñi nga xam ne ñu dañ seetaan série yi quoi saa yéen bëggee def suñ commentaire ñu def ci suñ commentaire waaw ndaxte ay jamono à l'époque loolu amuñu ko woon quoi tey daal dama bëggoon a joxe sama avis ak sama xalaat ci épisode bi xam ne daw na démb muy épisode marché bi doon daw démb muy séquence Aida bi daal séquence Aida bi moom séquence la boo xam ne nii touché na ma lool doo ma def nii sax di commentaire ci ay série mais tey moom wax dëgg fa yàlla daf ma touché wallahi ndaxte boo seetloo li naan nit bala nga koo jugé bala nga koo àtte bala nga wax ci moom dara sànni si ab deram lépp lu mën di doon quoi que ce soit na nga xam lan moo waral muy def li muy def ba pare ndaxte boo seetloo ñun ñëpp ñun ñi doon seetaan série bi ku si mas a gis Aida da yaakaar ne kii nit ku bon la wala li muy def mo ko tey te fekk li ci ginnaaw li tax muy def lii lépp kenn xamu ko kon mi ngi door a leer li waral ayda doon def li mu daa def di tuuf wala di naan sàngara wala di taxawaal ak yi demee noonu kon leer na si bopp ñu baree baree bari li waraloon Aida di def lii ba tey ñi ngi jàng maa ngi jàngataat ci copain bi nga xam ne moom la Aida doon nekkal waaw copain boobu tamit jàngat naa ci rôle am bi ko jox il joue bien son rôle wax dëgg yàlla rôle am bi moom joué na ko bu baax a baax a baax moog Aida ñoom ñaar moom ñu ngi leen maa ngi leen di saluer bu baax a baax a baax billaahi <laughs> ndaxte góor yàlla dëgg-dëgg bala nga ko mën a xam day wéet ak jigéen jigéen jox ko boppam mu maîtriser boppam ba génn ci loolu ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan juróom-ñaari yowmal xiyaam dana bokk si ñu yàlla di keral loolu daf cee bokk koo xam ne nii jigéen gu rafet dafa ñëw ci kanamam jébbal ko boppam mu ne ko man dama ragal yàlla sunu borom kon waa jooju nga xam ne muy bongo maan bi kon moom noonu la tey boo loolu noonu yonent bi di wax noonu la doxalee kon moom góor yàlla dëgg la ndaxte loolu lañ wax góor yàlla dëgg-dëgg moom mooy ki nga xam ne bu weeteeg jigéen jigéen gi jox ko boppam dana fexe ba mucc ci loolu dana fexe ba mucc ci loolu waaw maa ngi jégalu baax a baax nag ci vocal bu gudd bi Lou Xew TV maa ngi leen di encouragé bu baax a baax te xam ne lii moom lu am solo la salut waaw ba tey ma wax ci ñëwaat ci kaaw Aida bi rek ndaxte doomu aadama ak képp koo man di doon boo seetloo ayda li ko dal nii lépp lépp lépp mënoon na cee génn sa commencement ba début ba mënoon na cee génn bu ko neexee bu ko papa ji tëddee woon benn yoon ñaari yoon mën naa daw dem mais ni ko papa ji menacé si rakk ji loolu doon na loo xam nii lu doy waar la ndax am na ñoo xam ni bu doon ñoom seen rakk jëralu leen loolu mais moom dafa fexe ba métti bi xam ne moom mi ngi koy dund mu yam si moom kese te bu mu dem ci rakkam bu mu dem ci beneen beneen moroomu jigéenam kon moom loolu bokk na ci li nga xam ne bokkoon na li tax mu toog ci kër gi di muñ mais nag loolu ñu koy def métti na métti goo xam ne nii moom noonu rek la ko mën a soulager quoi ndaxte faaw mu tux wala mu def leneen ak leneen loolu mooy tax muy fàtte métti yi nga xam ne mi ngi koy am ci kër gi métti yi nga xam ne papa mi ngi ko koy teg kon loolu mu daa def noonu loolu lépp moom mooy li ko waral. waaw Aida daal wax dëgg yàlla man moom il est non xaw ma nu ma ko mën a waxee daal mais il joue bien son rôle billaahi rôle moom passé na ko bu baax a baax a baax.